jëm si li nga xamante ne mooy 17 avril bi si euh, loolu mu am benn woy bu mu bu mu bu mu bind tuddee ko yaay man maay yow Mouhamed Niang war a wax si loolu Mouhamed ñaŋ war a wax également si li nga xamante ne relation bi nga xam ne amoon na ko si diggante moom ak sëñ Béthio Mouhamed Niang tamit war a wax li nga xamante ne moo jëm ci inspiration boobu mu am ba daal di créer lu mel noonu euh, Mouhamed nag ku ne xam na ko si réew mi euh, xam nga tamit taxawaay gu mu am surtout nga xamante ne yaa ngi ko xam ñu si bëri tey jii ñekk si cant gi xam neen kan mooy Mouhamed Niang waaye léegi sax weesu na foofu Sénégal ba si international ñëpp xam neen kuy Mouhamed te lii muy def nii mu doon tamit un rôle important bu mu joué au sein du cant li nga xamante ne am na une relation particulière ak tey jii ki nga xamante ne mooy Sëñ Saliou Thioune bi nga xamante ne mooy xalifa ak baayam di xalifa général des Thiantakoune Mohamed nag ah daal di toog tamit xalaat ne lii tamit tey jii nii am na rôle boo xam ne war na ko si mu xalaat ne tamit donc lu ñu war a bind la mu daal koy def euh, woo si tamit ñëpp tey jii nii fas yéene tamit leeral li si bëri soo ko defee nit ñi xam tamit ana lan la ñuy xaar si loolu euh, waral tamit tey ñu wootee point de presse bii nii Mohamed xam naa euh, mën nañ laa kii rek nga daal di tamit dugal intro su ko defee après. ñu delloowaat gars yi kii bi euh, journaliste yi ku si nekk mën a poser tamit question jëm si ñett point yi mooy euh, le 17 avril bi nga xamante ne moo waral Mouhamed Niang woote lii mu defar lii mu def euh, mooy tamit li nga xamante ne mooy titre bi ak digganteem ak cheikh bi loolu day mel ni bokk na si ñett point yoo xamante ne moom la ñuy wax principalement moom mooy tourner autour des question qui seront posées ku ne xam na sëñ Saal taxawaay bi mu am ci ci ci ci ci yoonu murit ndax bu donn woon baayam rek mu doy waaye donn sa baay ba noppi am ndigalul sëriñ Touba loolu dafa neexati loolu nag euh, moo tax ñu fas yéene yeesaat ngir ànd ak moom ci liggéey bii ko sëriñ Touba jox te bu ñu seetloo ñëpp dégg nañu ko mu woo ma ci ñu ànd liggéey bi nga xam ni teg nañ ko ci loxoom ngir ma ànd ak moom ci liggéey bi loolu it bokk na ci li tax sama taxawaay tey ngir yeesal wax àdduna sépp ni dama ñëw tey ngir ànd ak sëñ Saal ci ndigal lii ko sëñ Muntaxa jox ngir ànd ko moom waa waaw 17 avril bi niñ koy waajalee mooy comme ni ñu ko daan ni ko daan waajee rek. mooy xam nañ ni bis la boo xam ni bisu lislaam la ndax ku xam jaamu sëriñ saaliw boobu bu bis bi masaan teru ni mu ko daan waajee ndax moom daan na wax ni bis boobu rek la ndax lu mu am diggam ak sëriñ saaliw bis boobu moo ko may waajee ko ci ña ab murit di waajee bis boo xam ni sëriñ tubaa ko sos comme màggal tubaa dalee ko ci alxuraan jàng ay xasida ah ren di comme ni ñu ko xamee nga xam ni tey ak cant bu ko murit yëpp xamee tey ñi ngi ko xamee ci làmmiñu Cheikh Béthio maanaam mooy ci moom lañ lañ la ñëpp xamee ak cant ndax bu njëkk jàng la ñu daa wax ay jàng nga daan dégg waaye cant bu ko tey murit yëpp xamee ñi ngi ko xamee ci làmmiñu Cheikh Béthio cant googu nag ñun jàngal nañ ñu ko ba ñu xam ko ci noonu rek lañ koy la ñuy waajee ànd ak sëñ Saal euh, comme ni ñu ko daan defee rek ñëw ah def yi fi cantaakoon sañse ba rafet dem fekki ko foofu ah, nit ñu baaxee nit ñu baaxoo xam ñu ci woy Serigne Saliou bu ñu ñëwee def nañu daan def rek. waaw single bi tey la war a génn euh, xam naa y a quelques minutes allah dina génn sur YouTube.

deux mille deux mille su ma juumul deux mille neuf mille dix ci la ñu woyoon woy bi mais woy bi dañ ko woyoon mais yeggul woon mais cantaakoon yi dañoo bëggoon woy bi ba fu ñu mësaan tase ci bâche rek dañuy ñaan woy boobu moom da ko daan jaral da daan jóge ba ndar ndar la dëkk di ñëw ngir cantaakoon yi ni daan ñaanee woy bi woy waaw xalifa moom ndar la dëkk ku ne xam na ni cheikh bi ay jamono daan def ay tournée tournée yooyu yóbbu woon ko ndar man fu cheikh bi daan dem ñoo daan ànd bi mu demee ndar nag euh, ci tournée ndar bi ci lañ xamante ma xalifa ndax seen kër la daloon foofu ca noor bi ñu fa may profité di leen nuyu waa kër ñoom bourgeois ñi famille bu baax waa kër ñëngi bi ñu fa dalee nag ci lañu ñu xamante boobu maa ngi nekk gone di di woyantu ma may may may may may fàttali ñëpp woy bu siiw boobu nga xam ni ñëpp dégg nañ ko mooy déglu leen tey ba ma woy yàlla buur bi di boroom sunu may yi munu may gën lu nu wuti woon feneen woy boobu maanaam tey bu ma wax Mohamed ñaa benn nit moo ko mës a jox woy ci àddunaam woy boobu la muy te xalifa Niang boobu moo ma ko jox boobu maa ngi soog a commencé sama carrière woy boobu nag mën naa ni mooy woy bi nga xam ne moo ma moo ma ubbi ci noonu la ñu xamante ba vitrine bi ñu def. Euh, ci gis nañu ne euh, njorteelu clip bi yéen ngi def genre télé euh, wane ci ki nga xam ne moom moo di Serigne Cheikh ak Serigne Saliou ak kan moo initié image boobu noonu tout au waaw xam nga yàlla dafa dogal. Mohamed Niang ko xool fi mu jugee ba fi mu yegg si di nga xam ni am na ay loxo yu nekk ci ginnaawam loxo yooyu nag tey mën naa ci tudd ku mel ni Ibrahima mbay Soppe mi nga xam ni Sénégal gépp xam nañu ko ah ci liggéeyam ci liggéey bu sell mu ànd koog it samay frère ak samay mbokk taalibe mbaay ku mel ni Mbarick Lo di di caam ak staff bi ñëpp kenn ku ci ne di ci dugal sa xam-xam ak sa xalaat mais moom ñëpp xam nañ ni loolu métier la ci xalaat loo xam ni bu ko nit xoolee daan ne macha allah moom moo créé télé bi d'ailleurs bu ñu xoolee kili ba ci xale yi moom moo leen ki moom ndax moom moo def xalifa ñaa ak moomeen ñaa bi ñu nekkee xale di way ba ni ñu màggee ci vidéo bi loolu waaw waaye loolu ci xalaatam la macha allah. waaw sëñ Sall ndigal moo may woon yi waaw xalifa waaw sëñ Saliou waaye xoolal yaa ngi ma fekk nii may def conférence de presse. Eh, ah, yaa ngi ci biir déranger woo ma de <laughs> gars yi nee na nga déranger leen. <laughs> Ah, ah, waaw waaw di wax ci 17 avril bi. waxaale ci ci la ci yow lañ nekkoon nii sax nag. barki Serigne Saliou Mbacké. waaw waaw barki Serigne Saliou lépp sëriñ bi moo koy moo koy programmé. waaw wallaahi wallaahi barke waaw gaa ñaa ngi nii journaliste yëpp ñëpp a ngi lay déglu loolu de kéemaan la waaw ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi ñu ngi lay bàyyi xel aussi di la ñaanal it am naa bànneex bu rëy ndeysaan macha allah macha allah léegi laa ko mhm, macha allah alhamdulilah cuun jërëjëf wallaahi wallaahi wallaahi cuun mhm. coy ndeysaan ndeysaan wallaahi mhm. alhamdulilah cuun jërëjëf <laughs> jërëjëf cuun waaw jeex na waaw dégg ngeen <laughs> jeex na <laughs> jërëjëf sëñ Saar insisté nag ci loolu muy benn rouge bu particulier la damay woo Mouhamed ci liggéey bi ñu ànd ko liggéey léegi ñii rek ñoo ngi def conférence de presse woote sa mm-hmm. diggante ak sëñ Sall waaw sama diggante ak sëñ Sall diggante Cheikh Béthio la ak Mouhamed Niang ndax sëñ Saal dafa fekkee lu bari euh, amu wax sax dafa fekke lu bari daa fekkee sama njëlbeen dafa fekke lépp bi may door ba fi ma yegg si ci kanamam la muy sama wayjur ndax moom ak sama sama wayjur la ni sama jur àndeek cheikh bi te it ñuy ak bokk dox ci sëñ Saal yàlla dimbali ko nag. Euh, mu nekk ku mës a jege cheikh bi xam ay bëgg-bëggu sëriñ bi xam ay yitteem ba buñ daan mësa a voyager fu ñu mësaan dem ci àddina sëñ Saal mooy mooy moo daan dox suñu passeport yeeg visa yeeg lépp ci loxoom la daan nekk kon moom xam na li sëñ Béthio bëgg loolu moo waral euh, mu yàgg ma bàyyi xel ndax dafa fekkee jotaay yu bari yu cheikh bi di waxee ci man loolu nag mën naa ne bokk na ci li mu jàpp xam na ni man liggéey bii nga xam ne moom la sëriñ Saliou jox way juróom man damaa bokk ci mission bi moom loolu la xam na xam gi mu ko xam a tax mu ma ci woo waaye fekk na laataa mu ma cee woo man wuy naa ko bu yàgg waaw. <laughs> waaw moom euh, bu weesoo sëriñ gi mu doon ci man xarit gi mu doon ci man ak sang bi mu doon ci man maay fan sam nag maa koy daaneel <laughs> comme nag ni ma doon daanelee way juram noonu laa yow daan koy daanelee. <laughs> waaw bi ma woowee léegi moom vraiment gis nga dama dama ko sax dagg parce que téléphone bi fii la tege woon dama seen appel bi rek euh, sama xol sedd na ndax hasard amul te lu lu lu yëngu rek euh, baatin ba sunu borom la moo tax ñu dañoo nekk nii te bi muy woote fekk na ngeen may laaj ci moom loolu kon mën naa ne lépp sunu borom moo ko programmé bi ma bi ma gisee appel bi sama xol sedd na dégg ngeen ni mu waxee sëñ Saal moom nii rek la mel nitu yiw la nitu jàmm la nitu ngëneel la nitu tawféex la lii nag dafa may gën a dëggalaat rek ànd bi nga xam ni sëriñ tubaat dogal na ko te ma war koo ànd ak moom ci liggéey bi confirmation boobu rek la doon def. gis nañ ndax yow yaa njëkk ci Cheikh Béthio yaa ko njëkk a ba tax ñoom ñu la si topp hmm. parce que gis nañ benn tradition spirituelle boo xam ne yow moom ngay demee si say wéy hmm. parce que feeñ sànq ci clip bi hmm. te booy woy tempo boobu ngay demee parce que li ngay woy dafay dem directement ci xol yi ba tax na ñëpp man seetlu naa leen ñiy woy Cheikh Béthio yëpp dañuy jël sa tempo yow li ngay woy lu waral boole ci kay ñi ñi woyul Cheikh Béthio sax léegi kay ñi woy ñëpp ci tempo bi mooy may woyee lañuy ñuy woyee loolu nag li ko def mooy dañ d'abord dañ ci sant suñu borom njëkk indiwuma ko nag ci ci santu Cheikh Béthio ndax fekk naa fekk naa fi samay mag ak samay jëwrin ñuy woyal Cheikh Béthio may profito di leen ziar di leen nuyu ndax ñoom ñoo ñoo xàll yoon wi ku ci mel ni Racine Diop Babacar dara Ibrahima Diagne ñii ñoo nekkoon ay woykat yoo xam ni waaye ñoom bi ñuy bi ñuy woy àdduna di leen ràññee ci keppaaru Cheikh Béthio boobu tëgg xewul woon tëgg mi mu ngi ñëwee ci fi ko sëriñ Saliou digalee pour mu def tournée te ma ma ma fàttali li waraloon tournée boobu ndax dama dama mës a toog Cheikh Béthio nettali ko moo tax ma koy wax tournée bi nga xam ne Cheikh Béthio ngi doon wër Ndakaaroog di wër fu ne dafa amoon ay ay ay ay waajur yu fi jóge woon dem Touba doon kalaame seeni doom sëriñ saaliw ci melokaan yu ñu mel te neexu leen yaa ngi dégg sëriñ Saliou nag ci la woowee Cheikh bi ne ko dama bëgg nga wër Ndakaaru nga wane ne ab murit nan lay mel lii moo sababoon tournée boobu Cheikh Béthio doon def lii dama toog Cheikh bi nettali ko ma amoon sens nag Euh, ànd ak tournée boobu cheikh bi bi mu koy soog a sos boobu moom laay wax fekk naa fi ay waykat mais boobu lii xewul woon moom da ko daan wax sax danaan tëgg mi soxalu ma tëgg mi taxul may may may ma ma samp lii ma samp bu ngeen gisee may tëgglu damaa bëgg su ma tëggee ñëpp ñëw bu ñu ñëwee ma wax leen kan mooy Serigne loolu nga xam ne moom moom moom la doon message boobu ma doon jàllale man message boobu laay jàllale ci samay woy bu ñu gisee way yi ni ma koy woyee mu méngoog jamono ànd ak jamono ba tey wax nga ko léegi ku ne bëgg a woyee noonu dama bëgg rek soo ko déggee maanaam mu bàyyi loola xel soo déggee rythme beeg tëgg yooyu mu neex ba mu jàpp la boo toogee di nga dégg loo xam ni li nga xam ni lii bu dul tëgg mi ak bi am na leneen lu ñu ci wax loolu moo tax ñuy tëgg euh, ginnaaw bi nga xam ni fekk nañu fi sama mag yooyu noonu man bi may nekk xale à 2003 laa commencé way bi ma njëkkee ñëw way sama première morso Cheikh Béthio dane dane ma ci baas la ko waxee ñëpp toog mu ne leen xale bii de na ko ñëpp bàyyi xel ci la ma tuddee c'est la révélation waaw ci la ma tuddee c'est la révélation nga xam ne jamono jooyu kaset yi moo xewoon génnewu ma woon sax kaset mais jamono yi gars yi daan jaay kaset yi dañ daan jël kaset yi aadi sëriñ loolu daan ci bind Mohamed Niang c'est la révélation loolu nag révélation boobu ma def indi xeetu woyin wi nga xam ni moo xew moo tax tey sama rakk yi gars yi tey ku ñëw di woyee ci temp boobu noonu la demee. wala album te tout temps parole yi euh, dafay daal di yeete. Mm. Euh, bu yeetewul tamit dafay am benn sensation boo xam ne euh, taalibe yi sax buñ koy dégg seen xol day daal di tooy ñu bëggoon a xam ñan ñoo nekk ci ginnaaw mm-hmm. waaw macha allah am na solo te muy question boo xam ne adduna sépp dañ koy wax mm-hmm. ba tey maa ngi koy expliquer di wax maay bindal sama bopp waaye taxul nit ñi gëm ko. yàlla dogal na Serigne Saliou dafa dafa def lu yéeme mooy tey laa koy tey laa koy wax àdduna set dégg ko mooy Mouhamed Niang jàngul tubaab jàngul alxuraan jànguma jànguma français tey boo bindoon woyu arab ngir jox ma ko duma ko mën a way soo ko bindoon ci français jox ma ko duma ko mën a way kon loolu jeexal na ni kenn bindaluma kenn joxuma way mais naka ngay def bay bind li nga xam ne nag moom moo di eh, say texte parce que tamit boo jàngul bëgg a bind bëgg a répéter parce que quoi qu'on puisse boo gis thème la mm-hmm. ah, thème bi danga koy mën a bind mën ko répéter nan ngay woyee nan la waaw loolu nag muy leneen mooy euh, bu ma nee jànguma tubaab mooy bi may nekk xale ba commencé dugg école euh, ja dal sixième ci la sama woy wu góor tuxoo Dakar ñëw Touba ñun loolu moo yàq suñu njàng te li ko waral mooy dégg gi mu dégg Serigne Saliou woote ne nañ ko jox xale yi mu def ci ñoom la Serigne Touba daan def ci mag yi sama bàppa àllu murit jàpp ko boobu ñun ci lañ dem daara man mën naa ne looloo yàq sama njàng tubaab alxuraan ji li tax taxuma cee sori loolu xam naa leneen lay doon waaye ci tënk jamono ji nga xam ne ñun ci la ñuy ñëw xel kom daara ji ñu nekkoon dafa amoon lu fa xewoon loo xam ne du jar ñu koy wax ci ci télé ba sëriñ bi am wax yu joxoon ci waxoon buñ mënta bàyyi nangam nañu yem ci liggéey bi diiran boobu ñu nekkoon ñun jantu ci boobu jamono boobu amul woon jàngale parce que dafa am kuñ fa dóoroon am na yoo xam ne jarul kii waaye léeg-léeg nit dafay dafay dafay dégg Mouhamed Niang defe ni dafa dafa jeexal téere yi foofu laay waxee. Mm-hmm. yaa ngi soriwuma ci sama njàng. ba tey soo bindoon tey ci ci arab def ko ci way boo ma ko joxee duma ko mën a liir ndimbalu Serigne Touba rek ak tew tawféexam moo wàcc ci man loolu moo tax may bind samay way ni ma koy defee nag mooy xam naa ni tee ak a boo ko boolee taala <laughs> loolu moom xam naa ko loolu moom xam naa ko noonu laay taqalee sa man tey jii ni muy bindee sama way hmm. su ma ko bindoon ba jox la koy di nga ritaan ba sol ndax man damay jël ash bi yóbbu fële indi ceeb bi du ma ko sentir laa koy bindee. Ah, bi moom waaw inspiration moom fu ne la may dikkee waaye sëriñ bi la rek ndax sëriñ Tuubaa moom bu la tijjee ba di la wayloo foo mën a nekk fu ne mën na la fa fekk waaye ma ñëw moom am na am na question bu mu wax mooy ci télé yeeg image bu yàgg beeg yooyu loolu nag li ko waral mooy woy bi euh, dafa ko déglu xam ne dafa cosaane ndax ci début bi ñu ngi ciy wax diggante Serigne Saliou ak Cheikh bi fi mu dooree boo waaw 1946 Cheikh Béthio ci ni mu koy nettalee nga xam ni kàllaamam sax moo gën a leer ci niñ koy waxee moom moo doon bay ci toolu way juram way juram di kulli cuun lañ koy wax bàyyi kulli cuun moom ak magam ju ñuy wax sëñ gille yàlla na sëñ Tuubaa yokk ay leeram ñoo doon bay ci seen tool baay Sëriñ Saaliw jóge dëkk bu ñuy wax taset daal romb ci tool bi bi mu rombee ci tool bi cheikh bi moom ci ni mu koy waxee nee na gopp bi mu doon bayee mu samp ko daal daw topp watir yi comme ne ni xale di def noonu la koy waxee bi mu demee topp watiir bi Serigne Saliou yëg ni am na kuy topp ci ci ginnaaw mu ne kiy dawal taxawal neen ndongo loolu mu ñëw nuyoo nee na ci la ñëw nuyoo Serigne Saliou laaj ko noo tudd mu wax ko turam ak santam mu ne ko fan nga dëkk mu ne ko ci dëkk bee nga génnee di taset Serigne Saliou ne ko ndax xam nga kër Cheikh Ma Diop mu ne ko waaw mu ne ko mu ne ko xam nga sa sa baay baay Isma juuf mu ne ko waaw mu ne ko nanga ma fekk foofu bu ngoonee yaag sama gée cheikh bi nee na biñ demee tàggu seen way jur te ci yooyu jamono nee na seen jur nekkoon koo xam ni tàngoon la daawul bëgg ñoom sax ñu daan génn mais bi mu ko waxee ne ko Serigne Saliou moo leen woolu ci la ko wayjur ne ko ah ñooñu sant Mbàkke de ñooñu ñu baax lañ daal di koy daal di leen di bàyyi moo sëñ ji leen ñu dem bi ñu demee keroog gis ngeen vidéo bi bi ñu jugee ci image boobu gis ngeen xale bi nga xam ne moom lañu jox kaasu ataaya bi mu koy mu koy jël fekk am ay loxo yu bari yuy ñëw am loxo bu romb teg ko ci loxo bi ñu ñëwee ñoom bi ñu jugee foofu rek ba ñëw ci ngoon si jotaay boobu moo fa xew ndax dañoo ñëw toog ci kanamu sëñ Saliou fekk fa ay mag yu toog bi mag ñi toogee sëriñ bi xel li ataaya bi mu xelee kaas bi mu njëkk xel ni mu daal di koy tàllal mag ñi nekkoon ci wetam yaakaar ni ñoom la koy jox sëñ bi romb loxo bi jox teg ko ci loxo cheikh bi léegi nag boroom xam-xam yi ñoom dañuy wax ni nitug yàlla yu ci bëri bu ñuy def mbir ci yu mel noonu lañ koy defee kaaso ataaya boobu la ñuy wax te ngeen yàgg koo dégg ma di ko woy fu ne mën naa ne tey loolu la ñuy wax ni moo waral lépp waaw daje mag Serigne Saliou foofu la foofu la sosoo ba li xew yëpp xew ci loolu moo waral comme cosaan la borom xam bi moom bi mu ko waxee woy bi ni mu demee rek moom ci la wéet xam ni lii lii la war a àndal. waaw la mën woy dootuñu am naataange loolu quoi mais li yàlla def actuellement muy lu xaw a doy ci li ko li ko li ko li ko li koy jàppale ci liggéeyam dafa nekk des compétences diversifiées lu tax compétences diversifiées mais ñun ñii la ak ñi li di euh, c'est un intellectuel moom day indi regard intellectuel am yaa ngi cher technicien day indi regard technique man je suis un artiste ma indi sama regard artistique euh, kii Mbari jëwriñ la jëwriñ intellectuel donc day indi maanaam ak taalibe ak lépp maanaam boo xoolee donc liggéeyu Mohamed loolu moo tax mu am diversification bi mu am moo tax lu ci nekk rek dañ koy waxtaanee tënk nit nañu orienté lii vers ça moom moo tax ñu am résultat bii boo gisee woy wi nag dañ ci génne cosaan génne ci lu ne parce que au-delà des enfants yi nga xamante ni ñoom ñooy màgg jëm ca kaw macha allah nekk Mouhamed ak Khalifa leneen li gën a yéeme ci clip bi mooy accessoire ancestraux yi ñu utilisé mais nag yu traversé le temps ndax xale yi rajo ba ñu yoroon ca ca tool ya di woy rajo boobu moom moo ànd ak ñoom pourtant ba ci fin wu clip bi ñu leen seetloo quel que soit le lieu quelle soit la nature am na loo xamante ni moom moo leen boole te loolu leen jéem a indi ci clip bi rax ci dolli boo xoolee ci studio bi am na vélo am na ay pneu dafay wane ne rek bi fu nekk ci saal Saliou dem na tagg ko fa dox na yëg na vélo yëg na oto yëg na lu ne te bu ngeen seetloo ci suuf yi am na benn cour Baye Fall bu fa nekk te loolu Baye Fall moo koy jëfe ku gëm yoonu Serigne tuddeewoon na boppam sax Baye Fall Serigne Saliou gis nga donc yooyu yëpp nag moom la ñu matérialiser donc ci clip bi pour ñu traverser ko dans le temps et puis cette fois-ci Mouhamed quitté benn affaire dem ci beneen mooy ay cantaan ngeen ci gis ñuy fecc feccum cantaan kun moom leen gënoon a bëgg a aussi pour ñu vraiment lépp mais c' technique boo xamante ni mais jëmm yi toog fii aussi ah, mel ni su ma su déggee li ngay wax yaa yaa yaa ngi wax xale yi nga xam ni tey waaw maanaam ñi ngi woy euh, xam nga da nga naan xam nga cant sax daa yaatu te nit mën na sante yàlla ci lu yaa ngi dégg mais su ma la déggee mooy tey ñi nga xam ni euh, mën naa ne ku génn rek bañ na révélation la rek boo demee xooli lim def rek way jàmbur lay way loolu nag jàngat la boo xam ni defe naa ñëpp war nañ cee taxaw seetlu parce que bu fekkee toujours ñi ngi xaar ñi ngi xaar ay ay ay nouvelle révélation yoo xam ne dañoo war a génn pour jox nit ñi lu bees te saa buñ leen xaaree rek ay woyu jàmbur lañu ñuy wax waxuñu nag woy woyu jàmbur baaxul parce que euh, ñu bari ci ci ci ci ci ci way ay texte jàmbur ci lañu ñu ndaanaan ba tey ñu mënal seen bopp waaye man damay wax toujours ni man lii ma li ma am jagle la ndimbalu Sëriñ Saaliw la du sama kattan du sama mën-mën ku bëgg a way nag koo xam ne bëgg nga am foo yegg ci way ba boo fi jógee ëllëg ñuy mën di nettali sa taarix wala sa histoire man boo ma jegee ma wax la nan lañuy ñuy woyee Serigne Saliou Serigne Saliou dimbali nañu ba may nañu xam-xam ci moom donte xamuñu lépp waaye may nañu it lu ñu ko mën a woyee te du jeex waaw moom daal lii ñu yor du jeex te ku bëgg jàng ci ñun wala nga bëgg root ci ñun boo ñu jegee ñu baaxee la ko vraiment sama xol sedd na euh, presse bi liggéey baa ngi nii fu mbir yegg ci addina yéen yéen ko fa yeggale yéene biñ ci am mooy wane liggéey Serigne Saliou yéene biñ ci am mooy ndaw ñëpp topp Serigne Saliou te jàpp naa ni yéene boobu ma am yéen ñii moom ngeen am ndax fii samay mbokk taali bi rek fi ne kon na ngeen xam ne liggéey bi maa ngi koy tegaat seen loxo ngir fa bëgg mu yegg fa ngeen yeggale ko fa maa ngi di sant di leen al du moromo Serigne Béthio Thioune amul ma Seexu Seex sunu jublu si bindu way wi mooy wane kenn ki nga doono sunu yéene ci way wi mooy wane jëfi Serigne Saliou sunu yéene ci way wi mooy wane jëfi Serigne Saliou sunu yéene mooy wane jëfi sa sang Serigne Saliou moo gën sang ku mu doon sunu yéene mooy wane jëfi Serigne Saliou sëriñ Béthio sa sang sëriñ Sall moo gën a sang mu mën a doon sëriñ Sali wayi ki la jiital seex bi digal ñu topp la ba mu ne cunu defoo waxuloo nde yaay ki ñu doyloo ku la xol ci taset waree mu ci yow xam ni yaay gañu doon seet cër ba taalibe moomul mbokku du doom deke yaay ki ko yelloo kani yaay manuma yow Seex Béthio wane na li doono kani yaay manuma yow Seex Béthio wane wane na li doono kane yaay manu may yow sebe co warana niga dono kane yaay manu may yow cabe warana niga dono kane yaay manu may yow sebe co warana niga dono bakanala nde yaay dan gañi dal don sen moro bakanala nde yaay dan gañi dal don sen moro cheikh mumam bambi cam seri saliw yow la wayo ku la bëgg xam na la laaj Serigne Saliou mi nga ku du rabbana xamu la Serigne Saliou rek la xam ak jara xam jara waayo kii ku ko am noo koy noonu Cheikh Béthio ku lew toog moom Serigne Saliou ngi bër Cheikh Béthio ku lew toog moom Serigne Saliou ngi bër Serigne Saliou ndigal cuun ngu nang li nga doon Serigne Mountakha la jiital Cheikh Bamba doy la ñu ne doy nga nu doy loo saf nga noo nga nu sëñ Saar am jëf lu muy rëy yërëm kay dimbale nu yaa am ndigal le lu muy rëy bu nu yërëm nu yaa am ndigal <laughs>